وصلى الله وسلم wa سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ni ñu fi daan daje ngir dundal guddi gi nga xam ne mooy guddi gi suñu boroom taamu tabaraka wa taala wàccee ci alquraanul karim tudde ko laylatul qadri jox ko solo bu màgg mag màgg ci dundu jullit noonu lañu fi daje tey li ñu daan def itam mooy jëkke alxuraanul karim yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa feeñal ni guddi gi amul lu ñu ko mën a gën a dundale du màggal dundal la amul lu ñu ko gën a mën a dundale jàng alxuraanul karim li topp ci jàng alxuraanul karim mooy def ay salaatu ala nabi julli ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam li ci topp mooy ay naafila leneen li ci topp mooy fàttali bind ci wàllu diine ndax yàlla wax na tabaraka wa ne fu ngeen tollu dee leen fàttaliku seen mbiru diine di ko fàttali ndax ñi nga xam ne yàlla def na ci ñoom njub ak ngëm fàttali daf leen di jariñ leneen li ci toppate mooy la ca mujje ñi nga xam ne dañu néew doole su ngeen amee itam ci guddi gi lu ngeen leen mën a dimbalee ci xeetu jaamu yàlla la bokk ba tey alxuraan ji ni ñu ko daan jànge jàng nañu ko ñi nekk ci biir jàkk ji xeeti jàmm yàlla yi ñu tudd léegi kenn ku ci nekk yaa ngi ci wàll ñii naafilaa ngi naafila ñiy julli ci yonent bi alayhi salaam ñu ngi julli ci yonent bi ñi nga xam ne ñu ngi tudd yàlla ci turam yu màgg yi ñu ngi koy def ci seeni kurus ñi nga xam ne bëgg nañu te mën nañu itam naka day day dimmali way ñàkk ñi ñu ngi koy def mu des benn bi nga xam ne moom la yonent bi wax alayhi salaam muy nangeen fàttaliku seen mbiru diine fàttaliku mbiru diine gi ci lañu bëgg a jublu ni nga xam ne noonu lañu ko daan defe imaam Mamadou Njaay daan ko def naka jëkk moo ñuy boole fàttali suñu mbiru diine su waxee ba mu noppi du ñàkk mu am yoo xam ne danañ ko ca tofal ni ñu ko daan defe ba toll foo xam ne danañu war bokk ñaanandoo yàlla tabaraka wa li yonent bi ne woon ku yàlla may nga fekke guddi gi na nga ñaane ñaan googale bu ñu ca tolloo ñaane ko suñu ca jógee ñaanal ñi nga xam ni yàlla dafa defal dafa dogal tey ci mbaaxam ñu nga ca barsax te ñu ci bare bokkoon ci mbooloo mi ñeneen ñi di ñu yeyoo ñaan ci guddi tey bi bu ñu ca tolloo dinañu def ñaan googu itam sogo yeweeku kon ni nga xam ne noonu lañ daan joxe imaam Mamadou Ndiaye kàddu gi li ñu war a fàttali suñu mbiru diine joge ci moom ñu déglundoo ko ñu ngi ko koy jox yal nañu yàlla may ñu jëriñoo guddi gi te lépp ci yàlla def ci ngëneel yal nañu ko yàlla jox képp ku ko fekke war nga sant yàlla ndax yàlla tabaraka wa dafa waxoon ca njëlbeen ni képp ku weeru koor wi fekk ngay dund te tal ko nang ko woor ki woor ba toll fii tey ñëw ba ñu naan yaa ngi ci ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru koor wi kenn warul a gën a sant yàlla kon ñun ñëpp war nañu sant yàlla tabaraka wa te nee na bu ngeen ma bu ma leen defalee dara ngeen sant ma dinaa dolli bu ñu ko santee li des ci koor gi yàlla mën nañu baaxe ba ñu bokk ci ñi koy mottali mu nangul ñu ko yàlla nañu ko yàlla boole defal bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ni ko imaam waxe léegi guddi gi dafa nekk guddi goo xam ni guddi gu màgg la yàlla dugal ko ci weer wu màgg wàcce ci téere bu màgg te mooy alquranul karim loolu doy na guddi laylatul qadr màggaay ni mu ko waxee woon tamit mooy yàlla daf ñu daan baaxe at mu nekk ñu ñëw di sàn sànnanteeg mbokk yi ay kàddu mu aju ci lenn ci mbir jullit yi moo xam ci seen diggante la ak seen bopp seen diggante ak seen boroom ak seen diggante ak ñi nga xam ni ñooñu lañu ñu séqal àdduna bi yàlla subhaanahu wa dafa bind doomu aadama bi mu ko bindee mu indi ko ci kaw suuf doomu aadama yi bari nañu ñi ngi fu nekk ci àdduna bi ñii dund nañu ba dem nañu ñi ci des ñi ngi dund tasaaroo ci àdduna ñi ci des ñi ngi leen di séentu ci kàntanu yàlla doomu aadama yooyu yépp sunu borom bi nee na mu ngi leen bind min nafsin waaxidatin ci benn bakkan la binde doomu aadama yi ak li ñuy bari yépp benn jëmm moo leen meññ jëmm jooju di aadama alayhi salaam yàlla subhaanahu wa taala wax ni wa xalaqa minha zawjaha ka ko yàlla booleel ba ñu am njaboot yàlla waxatiñu ñi wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa ñoom ñaar ñu am njaboot njaboot ga di law ba egsi fi nga xamante ni fi lañu nekk tey te dafay continuer di law sunu borom bi subhaanahu wa nee na doomu aadama yooyu yépp ci benn bakkan bi la leen binde mooy bakkanu aadama doomu aadama yooyu dafa am loo xam ni moom lañu wara war séq ci seen dund ci biir àdduna bi bokk na ci loolu jokkuk mbokk alquranul karim wax na ko yoon yu baree bari sayduna muhammad salallahu alayhi wa junj na ko dinañ ko dinañ ci dellu bu ngeen xoolee aaya bi nga xam ni moom lañ doon wax léegi sunu borom bi subhaanahu wa wax ko ci cosaanu doomu aadama ba nga ko tàmbalee ya ayuha nnaasu taqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ni واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام na ngeen ragal yàlla mi nga xam ni dangeen di laajante ci darajaam ci seen biir ku nekk soxla ci sa moroom boo koy soxla bëgg mu jox la yaa ngi ko naan ngir yàlla yaa ngi jëmmal yàlla ci kanam ngir laaj ko la nga soxla yàlla bi mu egsee ni wattaqullaha la mu ci teg subhanahu wa taala mooy wal arxaama arxaama mooy mbokkoo gi nga xam ni moo nekk ci suñu diggante ci biir àdduna bi jël ragal yàlla tofal ci al arxam silatu rahim mu nekk kon sàmm gi nga xamante ne dañu war a sàmm mbokkoo gi loolu lu am solo la ndax a subhaanahu wa taala société bi nga xamante ni moom lañu ñu tëralal jàmm rekk moo fi war a am xéewal rekk moo fi war a am yiw moo fi war a am jullit yi waruñoo walla doomu aadama yi sax waruñoo mën a dund comme ay bàyyi ma du am dara lu ñu séq ci njekk ak mbaax ci seen biir lislaam dafa taxaw ci kaw njekk ak mbaax ak juboo ak àndandoo ak nekk benn loolu ma ngay tàmbalee ca cellules yu ndaw ya ca ca njaboot ya bu fekkonte ni giir gu nekk ña fa bokk dañu jàppante téyante ay loxo séq teraanga ci seen biir am jàmm ci seen biir def ko ci seen wàll geneen giir def ko ci wàllam geneen giir def ko ci wàllam ñépp àndandoo tase ci pénc mi te pénc mi mooy àdduna àdduna ba du mën a nekk lu dul àdduna joo xamante ni day baax taxaw ci yoon wi nga xam ni ci la ko sunu borom bi subhaanahu wa tëral loolu moo tax jokkuk mbokk muy lu ñu waxtaane war a waxtaane tey ci guddi gu màgg gii dafa nekk loo xamante ni lu am solo la lu nit war a bàyyi xel la ndax doomu aadama yi seen woroo ci biir àdduna warula mën a mukk fexe ba li war a dox ci seen diggante di dog mooy mbokk gi nit ñi ay mbokk lañu mën nañoo wuute ay daraja mën nañoo wuute ay man-man mën nañoo wuute ay xam-xam waaye ñoom ñépp am na buum gu yàlla doxal ci seen diggante ñu koy wax wisaal buum googu bu mu dagg mukk te buum googu fa mu war a taxaw na mu war a ta mel sunu borom bi subhaanahu wa taala moom ci boppam daf ko rëdd jokk mbokk alayhi salaatu wassalaam yenn saa yi bu bëggee jàngal ay mbokkam mbokk jullit yi ak saxaaba yi day jékki-jékki rekk nit diw xanaa mënuma la wax lanay nàngam walla soo ko ci ci ci méthode Seydina Muhammad salaa sallam la bokkoon day jékki-jékki diw yow xanaa mënuma la wax lanay nàngam nga ni ko ahakay yaa rasulallahi mu wax ko wala mu jékki-jékki ni diw yow xam nga la ne nàngam kooku ni ko ah allahu wa rasulu alam kooku day yàlla ak yonentam ñoo ko xam mu wax ko wala mu jékki-jékki ànd ak kenn tàpp tàppal ko ni ko kaay ma wax la nàngam yonent bi xamoon na ni jàngalekat la loolu moo tax fépp foo xamante ni tollu woon na fa dafa daan ubbi bunt yoo xam ni dina ko may mu mën a jàngal ay saxaabaam mën leen a xamal seen diine ndax diine ji dina ci am yoo xam ni saxaaba yi fekk waxuñu leen ko duñ ko xam yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ni ci moom la wàcc dana seet nu mu koy lijjantee ba seet nu mu wax ak ñoom ba xamal leen lépp lu mu bëgg bëggoon leen xamal mu xamal leen ko alayhi salaatu wasalaam dafa am saxaabi boo xamante ni uqba ibnu amir al juhani la tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko dafa laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ngëneel yi nga xamante ni jëf yi nga xam ni daal ñoo gën ci jëf yi mu war a def alayhi salaatu wa salaam ni ko yaa uquba sil baat bi mu ko jëkk a wax moom alayhi salaatu wa ko ku la dagg ci say mbokk jokkoo jokkool ak moom bu la benn mbokk dagg ba sa xol jóg walla nga ni dangay feyoon teeg moom ku la dagg yow wéyal di jokkoo ak moom loolu la ko aleyhi salaatu wasalaam jàngal tegati ko ci ni ko képp koo xamante ni daf la xañ te laaj la loo am jox ko ko àdduna du feyoonte laaj naa ko nii joxuma ko mu daal di nekk yëfu xale xaat manit bu ma laajee duma ko jox képp koo xam ni dafa dafa dogoo ak yow bul dogoo ak moom na nga wéyal sa diggante moom képp koo xamante ni danga ko laaj mu bañ xañ la li nga ko laaj yow bu la laajee na ko jox képp koo xamante ni daf la tooñ jéggal ko njàngal loolu seydina muhammad sallallahu alayhi di jàngal doomu aadama yi fi mu war a taxaw ba nit war ko mën a def mooy ci kaw imaan ak ci kaw muñ nga xam ni borom bi subhanahu wa taala lépp ci loxoom la nekk nga xam ni tamit borom bi subhanahu wa taala yooyu nga xamante ni moom la la ko xañ yàlla mën na la ko wuutaleel ki nga xamante ni daf la dog la yàlla mën na fexe ba bu ngeen nekkoon la nga ca daan am sunu borom bi subhaanahu wa taala mën na la jox loolu dog mbokk ak jokkuk mbokk dafa am solo sunu borom bi subhaanahu wa taala daf ko wax ci alquraanul karim benn bi tudd nañ ko léegi yàlla dafa wax ni wattaqullaha alladi kon moo tax ba mu jógee ni nañu ko ragal moom yàlla nañu bàyyi xel ci mu tefal ci ni lépp lu ngeen yàq ci mbokk gi lépp lu ngeen yàq ci seen diggante ak seen boroom dara du ci rëcc ndax seen boroom subhaanahu wa taala xam na loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ba tey ni ci xadis gannaaw ba jógee ci alquran nee na amul dara loo xamante ni mën nañ cee toppe yàlla mu joxe yool bu gaaw a gaaw a gaaw lu ëpp jokku mbokk nee na jokku mbokk yool bi ci nekk dafa gaaw te dafa bari te amul dara lu ko gën a gaaw kon jokku mbokk day yokk yool immédiatement ca saasa la koy indi yonent bi sallallahu alayhi wa waxaat ni amul dara loo xamante ni wa laysa shay'un ajalu iqaaban min bari baghi wa qati'ati rahim yonent bi sallallahu wa sallam nee na amul dara loo xamante ni moo gën a gaawale mbugal ni ki beew ak daggu doggu mbokk topp mbokk yool bu bari la bu gaaw la doggu mbokk mbugal gu bari la bu gaaw la tamit ñu xam ni kon loolu kon lu am solo la kon jullit bi fu muy nekk war na jël mbokk gi mu topp ko ba dara bañ cee yàqu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxati ni jokku mbokk day yokk dund day yokk dund doomu aadama day yokk fan loolu la ca des jaru wax maanaam mooy kon ñàkk jokku mbokk du loo xam ni sunu borom bi subhaanahu wa taala xemmem na ko yàlla bëggul loolu dafa bëgg ci jaam yi ñuy topp ñuy ñuy ñuy doxal mbokk di ko taxawul dafa am benn xadiisul qudusi mooy xadiis boo xamante ni sunu borom bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da koy nettali mu jugi ci boroomam xadiis boobu anas moo ko solo anas ibnu malik ku jigéñoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni yonent bi sallallahu alayhi wasalam nee na topp mbokk dafay dem ba ca arsh topp mbokk wax dafa dem ba ca arsh wax ci làmmiñ wax ju leer di ñaan yàlla moom moom moom topp mbokk mooy ñaan yàlla ni ko yàlla képp koo xam ni dagg na ma jot jogal jokkale na ma man mbokk yàlla na nga ko jokkale képp koo xam ni dagg na ma man mbokkoo yàlla na nga ko dagg sunu borom bi subhaanahu wa tontu mbokkoo gi tontu silatu rahim ni ko ana rahmaanu man maay yàlla maay rahmaan di yërëm sama jaan yépp ci kaw àdduna man maay rahim di yërëm sama jaan yépp ak fu ñu mënti doon ba àllaaxira ci sa tur ci sama tur man yàlla laa la jële laa la la génnee xam nga boo jëlee raxmaan jël rahim te dogu mbokk mooy rahim si la tur di nga ci gis arrahmaanu arrahimu arrahimu yàlla ni kon yow sa tur bii yow miy topp mbokk maa ngi ko soqee ci sama turu rahmaan ci turu sama turu rahim kon nag na nga xam ni képp ku la jokk dinaa ko jokk képp ku la dagg dinaa ko dagg mu daldi kon la ko la ko la ko jokku mbokk ñaanoon la ko silatu rahim ñaanoon sunu borom bi subhaanahu wa taala may na ko loolu lislaam dafa am nu mu tëddee noo xam ni doomu aadama yi bu ñu nekkee ci kaw suuf li leen war mooy jaamu yàlla def lu neex yàlla def lu yàlla bëgg bàyyi lu yàlla tere loolu mooy wareef gi nga xam ni moom la sunu borom bi subhaanahu wa taala teg ci kaw loosu doomu aadama yi loola moo tax jokkook mbokk gi ñu mën koo gis ci bunt yu baree bari ndax solo bi mu am doomu aadama bu nekk boo seetee njàngale mi islaam jàngale moo xam alquranul karim la wala sunna seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo ko seetee dinga gis ni li ci gën a am solo mooy nit ñi nañu jàppoo ci seen biir nañu nekk benn nañu nekk ay mbokk jokku mbokk googu suñu bëggee mu dëgër am na ay mbir yoo xam ni war nañ cee bàyyi xel ci suñu diggante suñ ci bàyyiwul xel rekk mbokkoo gi yàqu sooxe tem jamono ju mbokkoo yàqoo fii yàqu fële yàqu feneen dafay daldi di feeñ ci société bi dafay daan di feeñ ci pénc mi dafay daan di feeñ ci mbooloo mi bokk na ci yi nga xam ni moom la nit ñi war a def ci ci biir cadre boobu muy jokk mbokk mooy islaahu bay ni del xool mbokk gi fépp foofa gis ñoo xamante ni réeroo am na ci seen diggante ñàkk juboo am na ci seen diggante nga dox ngir jubale leen loolu la yàlla wax bul xamb bul am koy faral bul ay bul am koo àndal mbokk gi tasaaroo na ñii ak ñii juboowuñu li nga war a def mooy nga dugg ci loolu ñuy wax islaaxu daatil ni def lu nekk jubale leen te boo leen di jumale na nekk ngir yàlla subhaanahu wa leneen am beneen jubluwaay boo xamante ni mooy war a tax nga def loolu beneen bi ba tey ci liy defar mbokk mooy doomu aadama moo wér ak wéri ñoo ànd boo amee sa mbokk nga dégg ñu ni wéradi na dafa feebar yonent bi salaa ne nanga dem nanga dem seeti ko na nga seeti sa mbokk moomu loolu dina bokk ci liy defar mbokk sa mbokk feebar nga yëg ko doo fa jaar doo ko nemmeeku moom ci boppam dana am yëg-yëg bu mu am ci sa diggante digganteeg moom ci ñàkk ñëw bi nga ñàkk ñëw ak ci ñàkk gis gi mu la ñàkk gis ba nga xamante ni loola mën na dem ba seen diggante na mu meloon du ko mel soo sooxoo am ci diggante bi yonent bi salaa sallam dafa daan wax xëy wax ni kan moo dox mbokk kan moo seeti ku feebar tey abu ni ko man kan moo dem dëj tey ni ko man kan moo dem muy lim yu baax yépp ba mu paree mu ni ko yow day lii nga def nii lu rëy ci sa borom bi subhanahu wa taala kon nit ki dafa war a am yoo xamante ni ci ay wareef la yu mu war di def ngir mbokk gi gën a dëgër ñetteel bi mooy bu fekkente ni sa mbokk dafa am tiis bu ko dal ni ki am ko wàññeeku ci njabootam nga dem fa boo fay dem dangay dem deminu koo xam ni day ñëw ngir defal ko dalal ko waaye léegi bu nit amee tiis bu mel noonu mbokk yee ñëw di ko di ko di ko dëfal si daanaka dafay mel ni sax loolu yëkkatiwu leen ña nga ca mbiru àddina ña ngay fàtte nañu tiis wa ña ngay wax ci seen mbiru bopp mu mel ni barab bu ñu joxe rendez-vous boo xam ne dañ fa daje di di wax ci seen mbiru àddina te loolu yóbbuwu leen fa la leen fa yóbbu mooy seen mbokk am na tiis ña ngay dem ngir dëfal xolam maa ngi dem jaale ji jaale boo seetee taas yi li muy tekki ci làmmiñu arab jaale ji mooy dem wax ak sa mbokk defal ko xamal ko kantanu yàlla wonal ko ni lii dogalu yàlla la toog bokk ak moom ay ñaanam waaye dem nekk fa di def leneen lu dul loolu loolu bokkul ci li nga xamante ni day defar mbokk te boo ko dee def nag fekk borom dëj ba mu nga nekk fële di jooy bul fa bul yaakaar mukk ni la nga nekk ci yow ak say mbir ya nga nekk di ci yëngatu bàyyiwu ci xel lu la wax dara de waaye dina xam ni kii day jóg ni daf may màssawu si ni mu nekkee nii ci sama kër gi ci sama jataay bi gëmuma ni màssawu bi nga xam ni moom la may màssawu mu ngi ci biir xolam loolu moo tax kenn ku ci nekk lépp looy def ci jóg defal sa mbokk mu nekk ci tiis àndal ak moom ca tiis wa bu fekkente ni leneen nga bëgg a def nga tàggoog moom dem defi loolu bokk na ci doxuk mbokk ànd ak mbokk moo xamante ni dafa génn àdduna ñu koy jébbal boroomam walla mbokk mbokkam walla luy lu ko jigéen luy génn àdduna ñu koy jébbal boroomam loolu tamit mooy ñu koy tudde tashiul al janaza loolu tamit jullit yi war nañ koo fexe ba mu bari ci seen biir bokk na ci it li nga xam ni bokk war nañ koo sàmm ngir mbokk gi bañ a gaaw a yàqu bu nit génnee àdduna nañu gaaw nañ ko gaaw miraas nañu séddale alalam bu ngeen seetee jamono ji lu bare bari ci ay lëj-lëj yoo xamante ni day yàq ay mbokk lu ci gën a bari ma ngay dellu ca miraas ma ca miraas ma lay dellu miraas ma bu jotee bu ñu ko deful fan yey wéy weer yey wéy at ya di wéy dina dem ba toll foo xamante ni defar ko dootul neexat dina dem ba toll foo xamante ni xëccoo ba ak li ak maa am lii këlee am lële dina dem ba yàq mbokk gi nga xamante ni moo dox diggante eh, ay mbokk léegi dañ koy gis lu bari nit dafay génn àdduna mu mel ni daal kenn xamul nu muy doon mu mel ni daal waccul dara te fekk wocc na te dañ ko war a miraas ñu bàyyi ko noonu loolu dina indi ay mbir yoo xam ni doontele dina am ci njaboot gi ñoo xam ni waxuñu ko mi ngi ñu deñ ci seen xol dina am ay yëg-yëg yoo xam ni mën na am dafay dafay dafay sotteeku ci mbokkoo gi nga xamante ni moo nekk ci gënte mbokk yi ba eggale mbir mi fu mu warul woon àgg kon loolu tamit nañ ciy bàyyi xel bokk na ci tam li nga xam ni day yàq mbokk ba tey te ñu war cee bàyyi xel mooy li nga xamante ni da koy defar te ñu war cee bàyyi xel mooy di di defanante ay teraanga yonent bi sallallahu alayhi wa ci boppam moo ko wax nee na na ngeen di weccee ay teraanga ci seen biir bu ngeen ko dee def loolu dina dëgëral mbokk gi te tamit loolu dafa baax nit ki boo boo bu gisee nga di ko defal lu baax gis nga di ko indi ndimbal gis ni fu bëtam xonqe yaa ngi ci wetam kooku du def du def lu dul gën la jigéen gën a am cofeel ci yow waykat boo wax na ko ahsin ila nnaasi tastaabid quluubahum wa taalama staabada al insaana ihsaanu nee na deel defal nit ñi lu baax boo leen dee defal lu baax dañuy dem ba seen xol mel ni lu lay jaamu ndax bëgg laa dellu delloo mbaax googu ngay def sa digganteeg ñoom te nag loolu du léegi am na ñu bare doomu aadama yoo xamante ni Euh, boo leen defalee lu baax rek daanaka moom nga leen dañuy daal dañuy daal jage jigéen jigéenantoo day ànd day daal di am sa diggante ak ñoom bu ko defee cofeel sax ci diggante bi bokk na ci tamit li koy defar mbokk mooy yàlla mën na la mën nga am ci àdduna mën nga taseeg ay mbokk yoo xamante ni xamuñu li ñuy wax ni dañuy ay lu ñaaw lañuy jël jëmale ko ci sa kaw respecté wuñu la fonkuñu la ah boo leen yëgee ñoom yëguñu la comme ni ñu koy waxe ñooñu bokk na ci li nga xamante ni day defar mbokk nga bañ leen topp ci loolu loola ñuy def ci lu ñaaw yépp sa diggante ak ñoom bul ci bàyyi xel loolu dafa am xadis boo xamante ni da koy solo muy lu am solo lu bari lu ñu koy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko moo ko waxoon benn waay boo xamante ni dafa ñëw ni ko yaa rasulallahi inna li qarabatan asiluhum wa yaqtauna ni yonent bi sallallahu alayhi ni ko man ni ni yonent bi man daal dama am ay mbokk yoo xam ni damay jokkook ñoom fu ma toll maa ngi leen di seeti maa ngi dem di ñëw maa ngi def li ma war a def sama digganteeg ñoom waaye ñoom dañ may takk li may def di leen topp di topp mbokk gi ñoom duñu ko def ci sama digganteeg ñoom kenn ku ci nekk maa ngi lay seet li war ci sama digganteeg yow maa ngi koy def waaye ñoom lu ñaaw la ñuy jël sama mbokk yooyu di ko teg ci sama kaw der mbokk yooyu damay jëflanteeg ñoom jëflanteeg nit ku lewet ku baax xamuñu sama xadar xamuñu sama làmmiñ wu ñaaw xamuñu jëf sama jëf ju ñaaw mbaax rek laa séq ak ñoom waaye ñoom yajhaluuna ya kàddu yu ñaaw rekk la ñuy jël di ko teg ci sama kaw der maay dem duñu ñëw maay wax lu baax ñoom ñuy wax lu ñaaw may def lu baax ñoom ñuy def lu ñaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam xoolal précaution bi mu ñël ni ko la in kunta kama su wax nii noonu nga mel noonu nga fekkente ni nii nga wax nii noonu nga mel noonu nga mel sa mbokk yaa ngi lay tooñ ñi ngi lay dagg ngay jokkook ñoom yaa ngi wax lu rafet ci seen sa digganteek ñoom ñoom ñu yaxu yi ñaaw nee na yonent bi nee na bu dekkente ne noonu la dafa mel ni yow yaa ngi jël dé dóom bu tàng yépp yépp di leen ko sexal ñuy lekk bu dee yow nii nga wax noonu nga mel wéyal ci loolu ndax dafa mel ni yaa ngi jël doom bu tàng jëpp di leen ko soxal ñuy lekk te nag feek ñi ngi nekk yow noonu nga mel noonu ñoom ñu mel noonu na la leer ni yàllaa ngi ci sa ginnaaw di la jàppale ci sa digganteeg sa mbokk yooyu ñu am solo ndax tamit ki nga xamante ni yàgg moom yéen bokk ay mbokk ngeen même bu dul woon mbokk googu mbokk ngi ngeen mbokk jóge ca aadama xam nga doomu aadama yi euh, li ci li ci euh, metti mooy dafa am yeneen nattuwaay yoo xam ni ñoom moom la ñuy natte ngëneel yu bokk la yàlla tëral ni moom lañuy ñuy natte ngëneel am yeneen nattuwaay yoo xam ni moom lañuy ñuy natte mbaax yu bokkul ak moom la yàlla wax ni moom lañuy ñuy nattee mbaax suñu borom bi dafa wax na inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën a nit ki gën a tedd ci man yàlla mooy ki nga xamante ni moo gën a ragal yàlla waaye léegi nit ñi noonu am nañu yeneen mesure ki tedd mooy ki am alal ki tedd mooy ki am doole ki tedd mooy ki am xam-xam ki tedd ki tedd jël yeneen matuwaay yoo xam ni ñoom lañuy ñuy natte teraanga te bokkul ak matuwaay yi nga xam ni moom la suñu borom bi subhaanahu wa taala tëral képp koo xam ni danga woyafal mbokkoo gi nga xamante ni moo dox sa diggante ak jaa ak ñi la yàlla booleel ci àdduna bi jël mbokk dox doxale ko sa diggante ak ñoom képp koo xamante ni loolu ngay def na la wóor ni mujj ga ngay mujj du nekk mujj goo xamante ni mujj bu lay neex lay doon du nekk mujj bu rafet ndax gis nañu ni yàlla ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ci waa ji nga xamante ni moo doon wax léegi te ñu te ñu jokkoog moom xam nga ni fu ñu demee bay jël dóom dóomu taal di ko sexal doomu aadama ngir jëf ju mu jëf jëf jooju mu jëf mooy dog mbokk nga xamante ni dog mbokk kon lu réy la ci kanamu yàlla subhanahu wa taala yooyu mooy tamit mi ngi feeñ ba tey feeñin wu leer ci leneen loo xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ko wax na ko mu nekk xadis boo xam ni ku solo xadis ku ñuy wax ibnu Hibban moo ko solo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci xadis boobu ni ñetti nit a ngi nii ñoo xam ni duñu dugg àjjana yal nañu yàlla musal ci loolu ñetti nit a ngi nii ñu dul dugg àjjana kenn ki mooy mudminu xamrin ci naan sàngara ba xëy dee du dugg àjjana keneen ki mooy xaatiu rahim moo ñu yitteel ci sunu wax tey ki nga xamante ni day dog mbokk yonent bi nee na kooku du dugg àjjana koo xamante ni da fekk jabarkat buy wax ci ëllëg ak ginnaaw ëllëg ak di ah, di di di wane ni am na doole am na kàntan gudul kàntanu yàlla kooku tamit ku ko waxuñu ki koy def waaye ki koy dëggal sax du dugg àjjana loolu moo tax ñu war a bàyyi xel ci ni mbokkoo gi nga xam ni dafa nekk ci suñu diggante ñu sàmm ko ni ñu ko war a sàmmee suñu digganteek ak suñu boroom waxuma sax suñu diggante ak ndigal gi yàlla subhaanahu wa taala joxe ak ñaax bi nga xam ni ci la sayduna muhammad sallallahu alayhi wa ñaaxe nit ñi ñu bañ a dog mbokk waaye ñun ci suñu bopp jàmm lañuy indil ci àdduna jàmm lañuy indil ci biir société bi jàmm lañuy indil tamit ci réew mi bu fekkente ni ñi war a ànd ñëpp ànd nañu ñu war a jàppoo jàppoo kenn ku ci nekk la nga séq sa mbokk nga topp ko kële la mu séq ak mbokkam mu topp ko keneen que la mu séq ak mbokkam mu topp dara bañ cee dagg yépp àndandoo ñu fas ko ci buumu yàlla subhaanahu wa taala ni nga xamante ne noonu la ko waxe loolu bu amee taxalikoo du am mukk waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu bu yàlla ne na ngeen mooy ci buumam gi te bu leen taxalikoo buumam gi li mu ci jublu mooy takkee gi mu takkee mbokk yi ak takkee gi mu takkee nit ñi ak jàppale bi mu jàppalee doomu aadama yi ku nekk war a jàppanteeg sa moroom nga jàppanteeg sa moroom ci màndute ak ci yiw ak loo xamante ne subhaanahu wa taala daf koo bëgg ñàkk jokku mbokk gi nag lan moo koy indi lu tax lu tax nit ñi di dog mbokk seen ragal yàlla gu néew dox fu wa wax bu fekkente ni yow sa digganteek sa boroom boo ko nattoon di ci bàyyi xel ñu ni la yàlla nee na lii ci mbokk yonent bi nee na lii ci mbokk wax la sunu borom bi subhaanahu wa taala moom ci boppam ba mu nekkee wax ne mbokk gi ci sama tur laa tibbe turam képp ku ko dog ma dog la képp ku ko jokk ma jokkale la kooku ku waa nekk ci sa ci sa xol doo mën a def lu dul loolu waaye boo ko fa bàyyee di dem di defi leneen di dog mbokk di teg kooku mën nañoo wax ni ñàkk taqwa ñàkk gëm yàlla gi loolu moo indi moo indi dog boobu ngay dog mbokk gi bokk na ci tamit li nga xam ni moo tax nit ñi di dox mbokk ba tey mooy réere réere mujj kuy def loolu ndax am na loo xam ne boo xamee ni ku koy def lii la fii lay mooy mujjam te nga xam ni loolu la kon doo def loolu yàlla subhaanahu wa ci xadis yu bare bëri ci a alquran euh, yu bëree bëri ci alquranul karim woo na ci nit ñi ñuy jokk bokk wax nañ ko ci tàmbali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis yu bëree bari woo nit ñi ñuy jokk mbokk kon mbokk gi nañu ko jokkale suñu ko jokkalee jàmm dina am ci biir mbokk gi loolu ñuy tudde ci cellule ci biir famille bi ñi bokk dinañ am mbokk jàmm ci seen biir ñeneen jàmm ci seen biir ñeneen ñu bokk am jàmm ci seen biir jàmm yooyu bu ñu àndandoo tase ci pénc ma du ñu fa def lu dul gis fa jàmm dund ci jàmm ndax suñu borom bi subhaanahu wa taala moo ko tërale noonu yàlla dafa bëgg mbooloo moo xam ne ña fa nekk ñépp ay mbokk la ñuy doon te bu fekkente ni jokk mbokk amul mbokk du fa mën a am te suñu borom bi nee na julli yëpp jullit yëpp jullit yëpp innamal muminuuna ixwatu jullit yëpp ay mbokk lañu waxuma la nag mbokk ya nekk xamante ni mbokk ci biir njaboot gi la yàlla nañu yàlla sàmm yàlla dimbali ñu tamit ci topp mbokk googu ñu fexe ba doxal ko ni ñu ko war a doxale te bàyyi ci xel te xam ne lu yàlla fonk la lu mu dénkaane la loo xam ne ba mu nee nañ ko ragal moom yàlla subhaanahu wa la mu ci teg mbokk gi la ci teg loolu solo la allahuma salli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima bokk nañu déggandoo kàddu gi nga xam ni yàlla tabaraka wa taala daf ko jox solo ba dugalal ko ci boppam dugalal ko boppam ci biir alxuraan indil nañu ko indi nañu li nga xam ne moom la ci yonent bi wax alayhi salaatu wasalaam njëriñ yi nga xam ne moom la ci borom bi séentu ak yonent bi alayhi salaam ba santaane ko ak ni ñu ko santaanee lenn lu ci nekk won nañu ko la muy inditam daanaka ci réeroo ci ñàkk bennoo foofu la mujje te loolu jullit bu nekk war na ko xam bàyyi ko xel suñu boroom dafa bëgg nit ñi bennoo nekk benn bennoo gi won nañu ne mu ngi tàmbali ca mbokk ga mbokk gi moom ci boppam bennoo la yàlla tabaraka wa feeñal na ni képp ku dog bennoo googu nekk ci biir mbokk gi dina la dog te li ko gën di màndargaal nee na yàlla tabaraka wa dafa wax ni tur wi nga xam ne mooy turam moom yàlla muy kiy yërëm ñépp nee na araf wi nga xam ne moom araf yi nga xam ne moom la bindee tur woowule araf yooyu moom la dajale bind ci mbokk ci boppam kon dafa mel ne ci weneen waxin yàlla dafa ni man mbokk laa képp ku dog mbokk dog nga ma te ku ma dog dinaa la alak dinaa la mbugal bu yowmal xiyaame kon li nga xam ne moo ëpp solo te ñu dégg ko lenn li jóge ci alquraanul karim nga xam ne waxi borom bi la tabaraka wa taala lenn li feeñ ci waxu yonent bi aleyhi salaam waxtaan wi yépp génnul alquraan ak sunna noonu nga xam ni noonu la ko borom bi waxe kenn ku ci nekk la lay dundal dëgg-dëgg ci sa biir mbokk soo xamee ne yàlla nee na bu yomal xiyaamee dinaa leen taxawal képp ku am mbokk dog ko walla nga am mbokk bañ ko jokk te ñàkk jokk mbokk xeetu dog mbokk la feeñal na léegi ni ki nga xam ni dafa am mbokk mu tawat te seetiwu ko mu ngi mel ne kuy dog mbokk ki nga xam ne dafa am mbokk moo xam ne dafa nekk ci tiis moo xam dafa faatule walla leneen lu ni mel mu di fa dem demin woo xam ne day mel ne bokkul ca loola loola yoonam nekku ca nee na dafa mel ne mu ngi dog mbokk kom nag yàlla tabaaraka wa dafa jox mbokk solo bu mag a mag a mag a mag kenn ku ci nekk war nga gën a xam loolu ci yàlla namma tabaaraka wa te mooy bennoo gi ci bennoo la jëm kanam xaj ci bennoo la jàmmoo xaj ci bennoo la mucc xaj itam yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu mu ko waxe suñu boroom feeñal na ko feneen ne bu ngeen tàqalikoo rekk dingeen nasax yéen ñépp na ngeen jàppante nekk benn ci ngeen di mën a jëme kanam lu mu manti doon su nit ñi demoon tey ba nekkatuñu benn ci genn wàll ñoom ñépp dañuy nasax te kenn bëggul nasax yàlla tabaaraka wa taala ko xas boo ci alxuraan te lu mu xas ba wax ci alxuraan luwaa boo xam ne dara dootu ko àndal wala tanaaza'u fa tafshalu su ngeen bennoo wulee xanaa ku nekk dëkkmal fenn sa yoon ci li keneen di def sa yoon li keneen di def nee na bu ngeen ko defee da ngeen di nasax yéen ñëpp mbokk yi gannaaw bi ñu dégloo waxtaan woowule nga xam ne jotal na fa tabaarakallaahu leer na kenn ku ci nekk xam nga ni lii yàlla tabaraka wa waxoon ni wa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin yonente bi alayhi salaam yàlla daf ko sant ne ko foo tollu del fàttali jullit ñi loo xam ne bind la war doon ci ñoom ndax ñi nga xam ne dama def ngëm ci seen xol suñu déggee lu ñu fàttali danañ ca jariñu yaakaar nañ ne ñun ñépp ànd nañu jariñoo yàlla na ko yàlla fay yal na la yàlla fay yal na la yàlla dolli tawfiix defal la sutura du tey lañu mas a defal lu mel ni ëpp na fukki at mat na ñaar fukki at waxtu wu ñu tolloo fii bind bi nga xam ne moom la ñuy déglundoo ci moom lay jóge yal na ko yàlla may xam-xam bu gën a leer yal na yàlla yokk xam-xamam te lépp defal ko ko tawfiix bi xurmat seydi wu jóot sallallahu alayhi